Euh, accident bi lii tax mu metti oto yi niñ koy chargé du dëgg du yoon bis boobu ñuy wax tey du ma expert du ma dara 35 morts yi boo ma ko andiloon moo wax la kenn ku ne ñi ca ëpp ñu dee fan lañ toogee mais parce que damay yëg ci bis xam bisi tubaab yi nan la mel xam danger bi fan la nekk boo ma andiloon moo wax la exactement du ma expert du ma lenn ñi ëpp ñu dee fan lañ toogee. fa ñuy toogee li ci ëpp du lenn lu Versailles kan moo ko créé Afrique rek la pour lan ngay nangu ay Versailles yuy am fa ñuy mooy lan parce que banc yi dañ koy dendale ba mu gën a jege dafa am ay weñ yoo xam ne tey secousse sax bu amee nga damm secousse bu amee nga damm ci bis bi parce que bis boo xam ne 30 places la war a def vint 25 places nga def ci 60 places muy daw ci biir réew mi di dem ak dikk ay nit di dee sa yoon nekku ci doo jël benn solution. damay joxe benn exemple cette place ki yëg ku ma sa jël cette place yéen ñëpp jël ngeen ko place gannaaw bi ku fa toog dee bu def soog amee nga dee. parce que ñetti nit xaju fa te place gannaaw bi dafa jege plafond bi bu defee secousse bu ndaw sa bopp mooy dal ci weñ gi nga dee kat moo ci jël saafara kat moo ko toog xalaat ko ana ñen ñoo jiite réew mi. kan la ñuy toog xalaat ko stade yi sapeur bu ñëwee day def rapport ñi dee ñëpp day wax fu ñu toogee accident soog bi bu ñëpp day am ni day rapport bi day leer naññi. ban saafara lañ ci jël yéen ñëpp jël ngeen set place xam ngeen ne bu soog amee ñi njëkk a dee mooy ko toog ci gannaaw ndax mas na nañoo jël décision ne ah set place kat gannaaw gi nañ fa def ñaar nañ gën a écarter seuses tuuti nañ fa def ñaar kat moo mas sa toog xalaat boobu débat boobu kañ la mas sa juddu dans sa pays après ñu naan ndogalu yàlla yàlla yàlla bay sa tool bis bi war a def vingt cinq places nga def fa soixante places soog bu amee day metti rapport yi day génn ñen ñi ku ne di nga xam ñan ñoo dee ak fan lañ toogee saisi amul écart saisi diggante ay weñ la niñ ko defaree dara baaxu ci amul benn commodité bu fa nekk chauffeur si defuñ dara ay nit kese lañ bëgg a yóbbu seen dépense seen kër règlement dañ koy teg état teg ko mu doon règlement bu normal ñu daal di koy teg xool waa France nan lañ ko defee ñoom ñooy defar oto ya naka waa France defe ñun noonu lañ ko war a defee. amul lenn luñ ciy dolli wala dolli cere wala dolli ñeex parce que ñee ñooy xam-xam bi ñoom ñoo ko defar chaise yi am ay ceinture chaise yi ñu defal ko komodo ba nga mën a wéeru ba nga xam ne bu soog jëyee anti soog sax mën na am lu mënoon a nekk la nga xam ne booy dal sax mën ngaa dal ci loo xam ne tey xëy na day ubbeeku wala yu demee noonu parce que oto yu bees yi am nañ ko ay nit lañ duñ ay xar mais dañ ñoo yor comme ay yëru gétt suñ yoon nekkul ci ñuy dox ci dëkk bi. beneen bi andi sog yi te ñëpp xam ko te kenn saafaru ci dara oto yi ministre bi moo wax ñu dégg kenn nettalu ñu mu ne 45 pour cent oto yi amuñ visite technique lan mooy visite technique mooy oto bi war naa daw wala warta daw kon oto boo xam ne moo mag chauffeur ba yaa xëyti warta daw. li gën a xoromu ci réew mi dañ naan la oto bu amul moins de cinquant ans moins de du dugg ci réew mi bàyyi oto buy am soixante-dix ans di daw ci dëkk bi. mais on est dans quel pays loolu mooy ban xalaati nit loolu du xalaati nit xalaati dof la yi dof la boo demee ay Maroc gii wala yenn dëkk yi jarul Maroc Mali gii rek boo fa demee tey oto bi nga xam ne tey oto bu bees la c'est moins payant oto bu màgget boo ko fa andee fay gi day gën a cher moo am ci tubaab moo am yëpp da ngay obligé sànni sa oto bu màgget waaw malheureusement ay xar lañ ñu jàppe c'est ça la réalité dans ce pays parce que boo leen jàppewuloon ay xar di nga leen liggéeyal mais pour nga xëy dem def journée jàngoroy askan bi nga xëy ci doo ko def jàngoroy askan bi mooy xool problème askan bi 2017 coow lu bëri la ñëwoon ba sànq ci suba dara lañ ci deful dara lu ne ŋang nañ ko fi dara lañ ci deful ba tey oto yi am 70 ans ñooy daw ci réew mi oto yi dañuy continuer di surcharger di dawal horaire guddi duñ nelaw di tëli tëli booy ñi ko yor ñi ci ëpp ay booy lañ ay xale yu ndaw parce que emprunté ñooñu ñooy dawal guddi. amul contrôle amul dara ah nit ñi di continuer di dee ñu ne ndagalu yàlla yàlla yàlla bay sa tool ni ma koy waxee chaque jour yàlla faralul kenn buñ ci jëloon ay mesures taxaw ci def ci liñ ci war a def soog bii nii de bu doon 35 morts la man nañ koo def ba 20 lii yàlla may nañu xel mi buñ jariñoowul suñ xel tamit day gën di pire rek nous sommes tous en danger parce que réew mi nous sommes tous en danger même ñoom ñi ci état bi en danger parce que kuy dem voyage guddi xam nga li fi ne man mii rarement lay voyage guddi parce que da ngay dem ba ñemee tooku mais parce que da ngay gis bordel bu ne ci kaw tali bi ay camions yu taxaw ci digg tali bi panne ci digg tali bi kenn du leen fa jëlee oto bu daanu kenn mënu ko faa jëlee parce que administration bi amul sax mairie yi amuñ sax lu luñ mën a xëcce oto yi génne leen kaw tali bi c'est vraiment bizarre et grave parce que oto yi dañoo màgget oto bu màgget même chauffeur bi amulu ko intérêt même chauffeur bi amulu ko njëriñ mais xamul moom xamul dañ ko war a jàppale dañ ko war a teg yoon oto yi am soixante-dix ans camion yoo xam ne quarante tonnes lañ war a monter di santé ay quatre-vingts ay soixante-dix tonnes bëgg a daw ci réew mi fan la mën a nekkee oto bu war a sàdd vingt cinq places sàdd soixante places réew mi ñu ne dañ leen a bëgg am na ñoo xam ne nee nañ ñoo jiite réew mi réew mi intéressé leen loolu nax sa bopp la. réew mi bu kon ne nii ci ñun ñëpp lay metti parce que ñun ñii ñëpp mën nañ koy bokk wala suñu bokk bokk ci wala nga yor sa oto sa jàpp ne yaa ngi ci komodo kenn saaraane ca àll bi ñëw mbëkk la nga dee c'est ça la réalité dans ce mais malheureusement ñun ñëpp dañoo jàpp ne suñu yónnee ko ci affaire bi nii muy demee baax na am na ci ñoo xam ne dañoo xamul parce que xamuñ ne réew problème bu amee ña jiite réew ma dañuy ñëw jéem koo saafara la ca mën waaye fii nii dañ laa sax tal sax lañ la deful euh, beneen jàngoro gi ci gën a metti ñu ngi koy wax sapeur pompier dafa yéex a ñëw yàgg nañ koo dégg sapeur pompier dafa amul sax far benn yoon sapeur pompier boo matul euh, Kaffrine sax góoma la man am na sapeur pompier xëy na Kaolack lay jóge wala wala euh, bu amee Kaffrine sax xëy na lu bees lay doon même bu sapeur pompier amee Kaolack bu ñu euh, bu ñëwee du am benn matériel c'est que sapeur pompier yi dañoo war di wax ñoom it waaw ah, ñoom nañuy wax lan la ñuy jànkonteel dañuy ñëw gis nit koy dee mënuñ ci dara parce que amuñ benn matériel ambulance bu ñëwee. ambulance yan lañ am ambulance yoo xam ne tey amul benn secours bu ca ne ambulance boo xam ne dañ la fay teg yóbbu la teg la buntu hôpital urgence amu fa moo tax réew mi moo tax réew mi billaahi kuy sàcc alalu réew mi di ko lekk lu ne mën na laa dal xam naa ne ña ngay souffrir de ndax yàlla yenn yi du ko seetaan imagine toi accident bii ngeen di gis nii ñu naan la 40 nangam mort gis nga bu ñu demee genn wàll gépp buntu hôpital la ñuy dee parce que xam tax dafa am li ñaan hémorragie interne lay doon wala hémorragie boo xam ne mën na doon sax externe mais luy nàcc la te kenn mënu ko arrêté boo ñëwee urgence amuñ matériel qu'il faut pour mën a jël hôpital boobu noonu képp ko mas a fekke soog xam nga ci dara képp ko mas a fekke soog ba dem bundu hôpital sa àdduna day tukki dootoo bëgg dara ci àdduna parce que li tax dangay ngay gis ay nit ñuy dee sa kanam kenn mun na la sauver lu tax pourtant benn lal boo xam ne lalu sauvetage lañ koy wax lal bu am yëpp ànd ci il est sur les 3000 euros lay jar ay 2 millions nga xam ne yëpp mën na ci ànd ñu am ma euh, docteurs yi ñëw benn docteur pour nga fay ko maanaam li ñu naan chirurgien chirurgien Kaolack ba Kaolack daj Kaolack ba Kaolack daj laa la wax benn chirurgien moo fa am ji nga chirurgien bopp yi ñuy wax nii tey euh, am na ko ko doon wax bërki jëm ci benn audio nee na ñaar moo am Sénégal maanaam tey am na sa bopp nu muy ubbeekoo wala yenn ci exemple bopp ñaari nit ñaari docteur ñoo fi am c'est que réew c'est que li jàngoro réew mi ci boppam man jàpp naa ne nit ñi dañ koo xamul réew moom la ñuy dund réew moo xam ne boo demoon hôpital tey doo fa fekk chirurgien si boo doon benn chirurgien nga fay fekk ci raison bu lëmb ñu andil ko 100 cas fan la leen di opérer fu mu leen di ñawe genn wàll gi yëpp dañuy dee parce que dañuy dee parce que duñ am benn matuwaay boo xam ne moo leen di jël en charge lii la Sénégal di dund lii mooy réalité réew mi benn docteur boo ko fayoon 400000. vingt cinq ans bu la ko liggéeyal ay cent vingt millions lay tollool retraite mag lépp nga gis nit ñu dóor ay milliards tëdd di doxi seeni soxla réew moomu la ñuy dund benn chirurgien boo xam ne accident bii moo waroon a sauver ay vie pour nga fay ko mu liggéeyal la vingt cinq ans ci réew mi ça te coûte cent vingt millions maximum cent cinquante millions mu liggéeyal la ñaar fukki ak juróom giiru dundam ay nit dóor ay milliards mënoon a embauché ay dix chirurgiens ay nit a ko lekk di doxi si soxla di mujj fenn te ñoom buñ demee ci kanam sëñ bi ñu ne kookoon la ndayam liggéey wallaahi lazim ndayam liggéeylu ndax kooku la koy xaar biir àddunaam gii rek c'est sûr que ma ngay ndax am na yoo xam ne yàlla du ko seetaan muk yenn ak yi borom bi du ko seetaan